sëñ Cheikh mel ni tey nekkoon ouverture immigration euh, université wala complexe Cheikh Ahmadoul Khadim bi nga xam ne suñu ndoxaa sa waajur doon na ko amal yan kàddu nga ci waaw waaw xanaa damay damay moom xanaa ñëpp moom bisu mbégte la bisu sant la waaye damaa bëgg a jox sama kàddu nag sëñ sëñ sooy bu kebe rek moo <laughs> sëñ sooy bu kon bisimilah waaw ah, dama joxe sagari njaam nag ah. sagari njaam na am na mu mel mu mel ni tey bis bu bis bu rëy la ci histoire yoonu murid waaw ah, alhamdulilah ñu sant yàlla rek sant sant la yàlla sëriñ bi ndax nag lii ndigal lu yàgg la woon ndigal la la la la taxawal jumaa ji mooy ndigal li ak la la waxoon nañ euh, ajil sëñ bi moog liggéey bi ñoo ñoo jugandoo woon lépp rek am na fi ci diggante bi waaye yàlla dogal boobaak léegi mat na daanaka téeméeri at diggante sépp nag mel ne laq ab naal la bu sëñ bi bëgg waaye daa am borom ndax xam ne ku ne xam ne sëñ Tuubaa xam-xam ni ko toll kon ku koy liggéeyal yaakaar naa ne gannaaw jaamu yàlla xam-xam rek moo ci sës. mu mel ne liggéey bi li muy réeré ak li muy gaaw gaaw waaye sëñ bi daa mel ne gis ne day bi tàmbali. waaw ndax tabax ko yomb na waaye ara la koy taxawal nag ndax ay nit a fiy jàngale ay salaire kon dañoo war a takkaar sunu laxasaay ku ne bu ci defoon benn na jàpp ne da ngaa war a defaat téeméer. addiya yi at mu ne wut taxaw ku ne loo ci defar nga gën a yokk loola war deme demee incha allah. jërëjëf fekke lu mel nii fekke ubbi euh, tàmbali ga fekkee ubbite ga ci sant yàlla suñu borom la. di ñaanal seex Mouhamadou Mountakha Mbacké sunu borom ak gële yéeneem te yàggal ko ndax euh, dafa andi loo xamante ne mooy li yoon wi manqué woon. yoon wi amoon na lépp waaye nag euh, lu mel ne bërëb bii ñu nekk muy bérébu xam-xam bokk ci béréb Sëriñ Tuubaa yi lu boroomam te Sëriñ Muntaxa mel ne moom la ko yàlla doxale ci moom xanaa kay li am solo mooy ni muy waxee rek ñuy jéem a dund sëñ bi ba lépp loo xamante fi fiñ tollu ñu ko yitté wo soxla woo ko ñëw man ko am ci kanam. lan mo wara a nekk mouride murid yi bi suñ Muntaxa tabaxee daara ju toll nii. lan mo war a nekk dal nañ aw sas ndax bi rek a ñu def ni mo gëna ndaw ci li ñuy tambalé li ñu def ni ndax dañu ku ne xam université la koy gungé mo ëpp doolé mo ëpp doolé la koy la koy gungé ngir liggéey bi mëna a dox. moo ëpp doole bâtiment yi bâtiment yi ba yi bëri jëlee baagal li koy gunge nag mu bañ a taxaw loolu moo ëpp doole. loolu nag kon mooy moo lay xamal ne kon taalibe yi ku ci defoon benn na nga xam ne fukk ngi sa kanam yoo war a def ñëpp war nañ ko bàyyi xel xam ne ñëpp war nañ ko waajal ndax liggéey bii xaaru ci kenn njabootu Sëriñ Tuubaa gi taalibe Sëriñ Tuubaa yi ñoom dong la ci xaar te ñoom la ciy àndal te ñoom la xaaru ci kenn ku dul ñoom. ñoom dong it ñoom ñoo tax ñu taxawal ko li may andi foofu ay kàddu yi nag ñun taalibe yi ndax sëñ bi bu tabaxee lu toll nii dafa laaj liñ naan consommation ndax université ku ne xam na ne am na lu koy gunge kon mu mel ne kër yu mag yi kër gu ci ne war ngaa taxawal ab lycée ngir ngay mën a produire. waaw ma ngoog ngir ngay mën a produire ay nit yoo xamante ne dañu mën a ñëw di yàng si fii ndax bu fekkee noonu murit ñi defuñu ko it. liñ koy tabax tabax ak liñ koy moom moom ay jàmbur ñooy ñëw occupé ko ndax it nag xam-xam moom du kër bàyyi kenn du kër ndeyi kenn ki ko fannoo nekk ca rek mooy tax mu mën caa tàbbi. waaw loolu de daanaka liñ ci mën a yëkkati li kilifa yi wax wundu na lépp ndax euh, sëriñ bi moom dafa xam kan mooy sëñ Touba xam ki muy liggéeyal ca wóolu ko wóolu gu mat sëkk. moo tax xam ne ne lu mu ko sumbal dana àgg te xam ne lu mu ko sumbalit mbokk yeeg taalib yi danañ ci ànd ak moom ba mu àgg moo tax moom ba mu koy def xëy na ci ñeen yëlli diisoon wante moom dafa woyofoon ci moom loolu toll ndax nu mu xamee sëriñ bi ca ku ko xamit xam ne noonu la masta sumb lu tuuti eh, loolu nag wóolu sëriñ bi la wante liñ ci def na mooy sant yàlla bu baax a baax ba nga xamee ne nii eh, fekke nañ tegu xeer wa ak mébét ya bañ agsi fii ñu agsi ci nga xam Euh, xalaatoon nañ ko ci at yu ëpp lii kon bu agsee fii ba motivation bi taalibe bi benn bu nekk def ci sa sa kemtilaay kàttan mbokk yi kenn ku nekk def ci se kemtilaay kàttan ñi sore ñi soriwul ñëpp gis ko mu am loo xam ne dana ko dindi jeexital ko ndax daan na am loo xam daan na yàqu ci gone yi ñuy jàngal buñ génnee ba jàng ji bitim réew dañuy jël culture jàmm fàtte culture ba leen formé woon bañ doon lañ doon lool nag lu lu lu am njariñ la loo xam ne delluwaat sëriñ bi li mu am ndax mel ne da ngay formé sa nit ba mu doon kàng ca fa muy jëm jëm foore ca fa muy dem bu demee mu mel ne la tuuti lañ cey def cim at ñaari at mu mel ne dafa raw ñi fi nekkoon ca fekk lim jëlee woon fii lam rawee foofu lim jëlee fii moo tax mu mën ko doon kon nag lii dafa doon ci plié boo xam day dindi loola ca Cheikhul Khadim it xam gu mu xamoon jamono moo tax lam doon naal yëpp mu naal ko ndax lu mu xas noppi ci moom kenn mënatul ci moom ak yàq kon nag loolu yaakaar naa bu fekkee ne dem nañ ba nga xam ne nii mu doon na benn système éducatif boo xam dañ ko seetlu moo nekk ci biir muy li dalee ci arxuraan ji ba nit ki fa noppee ci njàng amatul rupture ndax bu njëkk la daan am boo njëkkee dugg école boo bëggee jàng Alxuraan day mel ne amoo woon da wutaat say kayitu judd juddwaat geneen judd gu bees kon day mel ne judd gu njëkk ko compté wuloon loolu nag lii dana ko dindi xam-xam gi nga xam ne moom la nit ñi doon xiif di ko mar ci am lu leen daan tënk loo tënk boobu la sëriñ bi dindi kon nag lim ci am na leneen lum junj nag ne liñ weesu moo gën a tuuti ci liñ jëm waaw loolu nag mooy dox wi kon nag dañuy xam ne dañuy doog a tàmbali comme dañuy doog a tàmbali nag nañ eh, mel ne kon nañ jéem a raam jéem a ñox ñoxi ba dox bu ñu yem ci dox nañ daw jiitu ji liggéey bi nañ ko liggéeye képp koo xam ne mi ngi ciy def na ko def ngir yàlla wante na fekk taalibe Serigne Touba yi nekkal seen bopp. Euh, tey lay doog a tàmbali tey lay toog wala ñu ne sax tàmbaligul day waaja a kon nag loolu moom nañ ci góorgóorlu baax gën a xam ñoom nag danañ ko organiser ba lenn luñ ci def lu ci nekk dana xam fu mu ndax ndax Cheikh Mountakha ku ko xam xam ne du def dara ci lu xam-xam tërul du def ci loo xam ne ni xel mu rafet tëru ko du def loo xam ne dana génn ci ndigalu sëñ bi ak yoonu sëñ bi ak ni sëriñ bi tëggee kon nag nañ ci dalal xel bu baax ca xam ne benn ndam la ci ndam yi wante na bu buñ ko puukiroo ci ndam rek nañ fexe ba suuxat ndam loola garab meññet boo ko gañ garab boo ko jëlee jëmbat ko di ko saytu da ko war saa su nga koy suuxat di ko defar ba lay jox meññet ma gën ci meññet yi kon nag loolu yaakaar naa euh, kon nañ sant yàlla ngone yi fi nekk it ci am seen waajur sant ci yàlla bañ bokkee ci ñiy tàmbali sëriñ Touba liggéeyam bi fii kon ñu xam ne loolu lii moom niñ koy jàppee pépinière la boo xam ne tey bu màggee ca nañ defee woon pépinière bi soxna jaara pépinière ba moo juddowaat fii ci keppaaru Serigne Touba beneen ba ca des na loolu buñ ko defee nag ba ñi ci yeneen kilifa yi nekk ci biti jox nañ leen message ku ca amoon i daar na taataan li nekk fi ba mu doon benn tënk ndax tënk bu gënee doon benn tënk gën tënku yaakaar naa ca lay gën a neex a lijjante ca ka lay gën a a defaree kon loolu daal mooy mooy appel bi nga xam ne moom lañ ci def ab système la boo xam ne nii Serigne Touba ko joxe ndax Cheikh Mountakha moo fi Serigne Touba kon nag ñun ñëpp nañ ko approprier nañ ko jël def suñu moomeel kenn ku nekk fas yéene mu bañ a laal suuf kon loolu buñ ko defee yaakaar naa suñ borom danañu dimbali ba lañ jëm ci kanam ca nag li ci kanam moom moom incha allah yaakaar naa lii ab ab junj la rek luñ gis rek la ngelaw lu fi jaar di jaar rek la wante la ca la la ci ëpp njëriñ ma ngi ca kanam incha allah baax na jërëjëf.